الأحكام وخص شهر رمضان من بين الشهور بفريضة الصيام وبين الحلال وحرم الحرام نحمده سبحانه وتعالى على آلائه الكثيرة ونصلي ونسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم mbokk ñi ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di wax ne mboolem cant ñel na ko moom yàlla subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak saxaaba yi ko toppoon ak képp ku jaar ca seen yoon ba keroo bisu penc di sant ak gërëm yàlla moomu nga xamante ne ni moom moo yoonal والتليد شرائعي da moy shari'ai muy ay yoon yi yonent yi indi waaye di sant yàlla mi nga xamante ne ni moom moo def dal di teg àtte yi dal di jagleel lii di weeru koor ay jagoo yu rëy ci mbooleem weer yi nga xamante ne dal di farataal lii di yàlla moom nga xamante ne leeral na lu dagan waaye leeral na nga xamante ne moom mooy lu xaraam di ñaani di ñaanal suñu yenent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yokk ko ay xéewal te jàmmal ko te muccal ko moom ak ñoñam ak saxaaba yi ko toppoon kon mbokk jaamu yàlla yi ñoo ngi dellu si tey di kontine suñu jota yu weeru koor di keppaaru koor tey di juróom benneelu jotaay bi di guddik samdi di juróom benn fan ci weeru koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ci gàddaa yu yonente bi salallahu aleyhi wasallam lii di tomb tey bi ñu ko jamee ci leeral ngeneen yu bari yàlla subhanahu wa taala def ci weeru koor cheikh bi commencé tey شجتاي ويرو كوربين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين شيخ بوبي كوم نيم باخو دي سانت اك غرم يالله سبحانه وتعالى مي بروم جامي دي جولي اك سلمل تي بيونتي محمد صلى الله عليه وسلم اك كرم اك صحابه يكو توبون يب شيخ شهبون فرض الله صيام شهر رمضان على هذه الأمة وجعله أحد وجعله أحد أركان الإسلام من يلا سبحانه وتعالى دفع فرط الور وير كور تي خيت ويدي خيت يونتبي صلى الله عليه وسلم مدال كوي دف منك بونك تي الإسلام يجرومي كم نيجي نكو خمي بونك الإسلام يجرومي moy seede nde amul koñi jaamu ci dëgg tudul yàlla subhanahu wa taala waaye seede ne yonent bi salallahu alayhi wasallam ndawal yàlla la subhanahu wa taala waaye di taxawal julli di ko joxe comme ni ko yàlla santaane waaye di génne asaka waaye di woor weeru koor kon li du wor wéru koor moom mooy ponku ñeenteel bi ci ponk lislaam yi naam فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات ثم توفاه الله وبقي الصيام فريدة كتبه الله على هذه الأمة كما كتبه على الذين من قبلنا من أهل الكتب, من أهل الكتب السابقة yàlla subhaanahu wa taala dafa farataal lii di weeru koor mi ngi ko faratal ci ñaareelu at ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi gàddaayee jóge màkka dem medina ba am ñaari at ci la lii di weeru koor daal di wàcc ci ko yàlla farataala ci xeer wi kon li ñu seetlu mooy weeru koor tegul te wacc ci njëlbeenu l'islam waaye ci yàlla yónne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ab diir ba yonent sallallahu alayhi wasallam gàddaay ba am ñaari at ci la yàlla weeru koor ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dundam woor na juróom-ñeenti koor juróom-ñeenti koor la yonent bi sallallahu alayhi wasallam woor kon buñ la laajee weeru koor kañ lañ ko farataal ci xeet wi kon da ngay tontu ne ñi ngi ko farataal ci atum ñaareel ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ la bi sallallahu alayhi wa ci dundam ñaata koor loo fekkee woor ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñeenti koor la woor après ci la ko yàlla subhaanahu wa taala faat mu daal di génn àdduna koor di des di nekk farata yàlla faratal ko ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko farataale ci xeet yi jiitu woon yàlla wàcc woon ci ñoom ay téere yónni woon ci ñoom ay yenent ci صلى الله عليه وسلم فهو فريضة على كل العباد بما يدل على أهمية الصيام ومحبة الله له كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصوم لي وأنا أجزي به يلا سبحانه وتعالى دفكور منك mu جام يب لو جتتل yitteeg ak amuk solo koo xamante ne ni koor am na ko ak bëgg bu ko yàlla subhanahu wa taala bëgg moo tax mu farataal ko ci xeet yépp xeet yi jiitu ak xeetu yonente bi salallahu alayhi wa sallam comme ni ko yàlla leerale ci xadis xudsi bi yonente bi saa sallam wax ne yàlla nee na asawmu lii wa ana ajzi bi koor day man maa ko ma man yàlla subhanahu wa taala tamit maa koy fayal sama bopp kon fa limaada xassa asawmu bi annahu lahu maa anna kul al amali saliha lillah xassahu li ahamiyatihi wa li annahu sirrun bayna al-abdi wa bayna rabbihi laa ya'lamuhu lu tax yàlla subhanahu wa taala jagleel koor moo ko yàlla moom moom jëf yu baax yi jàmbi di jëf yépp la moo tax yàlla jagleel koor wax jooju noonu yàlla subhanahu dafa jagleel koor wax jooju noonu ngir am solo ak importance boo xamante ne ni koor am na ko ndaxte koor mooy secret bi dox diggante jàmbi ak yàlla subhanahu wa سكر bi dox diggante jaam bi ak yàlla subhaanahu wa taala moom mooy lii di weeru koor kenn xamu ko ku dul yàlla wa taala الذين يتركون الطعام والشراب والمشتهيات كثيرون حتى الفلاسفة يتركون هذه الأمور هذه الأشياء من باب طلب الصحة بترك الطعام والشراب وأما المؤمنون فيتركون الطعام طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى على أنه عبادة على أنه عبادة عبادة لله عز وجل وفضله وفضله عظيم لا يعلم ثوابه إلا الله نيغا خامتيني داني باي لي دي ليك اك نان اك يين بانيخي اك نيت كي داكوي بëgg diko soxla اك يين soxla yi ñu bari lañ même bu dul koor duñ sax ay jullit dañuy bàyyi lekk ak naan bàyyi lii di yenn mbir yi waaye defuñu ko ngir jaamu yàlla subhanahu wa taala dañu koy def ngir wér-gu-yaram ndaxte lii di médecine saxal na ne am na ay njëriñ yu am solo ci wàllu wér-gu-yaram ñu def ci doomu aadama bi ndaxte bàyyi lekk lekk-lekk dafa am wér-gu-yaram bu muy def ci yaramu doomu aadama moo tax ñenn ñi nga xam duñu ay jullit ñenn ci yéefari ak ñenn ci ñoom ne sax ay philosophe lañ ci ay jamono dañuy bàyyi lii di lekk ak naan ak yenn soxla yi ngir di sàkku wér-gu-yaram waaye bàyyi ko ngir jaamu yàlla comme ni ko jullit di defee bàyyi ko ngir jaamu yàlla subhanahu ndaxte jullit yi ñoom dañuy bàyyi lii di lekk ak lii di naan ak yii di seeni soxla ak yii di seeni bànneex ngir sàkku ngërëmul yàlla subhanahu wa dal koy def lii di ak jaamu yàlla subhanahu wa taala duñ ko def ngir aada duñ ko def ngir lan sakkoo leneen waaye dañ ko def ngir ngërëmal yàlla subhanahu wa taala ak jaamoo ko yàlla subhanahu wa taala ak sàkku lii di ngëneeli yàlla yu màgg yi mu def ci koor nga xam ne kenn xamul nu mu toll dam ci def ci yiw ak ngëneel ku dul moom yàlla subhanahu wa taala amma baqiyatul a'mal fa inna allaha bayyana thawaabaha man jaa bilxasanati falahu ashru amthaliha ndaxte yeneen yii di jëf yu baax yi yàlla leeral na lam cay fay leeral na jaam yi yeneen jëf yu baax yi jaam bi di jëf muy képp koo xamante ne indi na benn yiw yàlla dina ko fay fukk yàlla loolu la leeral ci li nga xamante ne ni moom mooy yeneen jëf yi waaye lii di koor la ne ci pay ak yiw yàlla subhanahu wa taala dafay dencal jaamam bi moo tax mu ne koor man yàlla maa ko moom te man maa koy fayal sama bopp yàlla koor jagoo jagoo bu rëy وفي الحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى أكبر الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يو يا سبحانه وتعالى دكوي فاي فك يمن نمام بأجتي جلوم نتيمير كي أي فلندي بأجتي فلندي يبري بري كن خمك كل يا سبحانه وتعالى الصيام فريدة عظيمة فاضلة فيها فوائد دينية على أنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في تاعته ومنها فوائد صحية للجسم فهو خير كله ويرو كور فرطة بمقلة ببرنجنال أي جرين يبري نكتة تلو جمج والو أدنى أدنى جمج دينة فرطة لا njëriñ yi jëm ci wàllu diine mooy ne jullit bi da koy sàkkoo jaamu yàlla subhanahu wa taala ak utug jige ci yàlla subhanahu wa taala ak jublu ci yàlla ci topp yàlla subhanahu wa taala moo am ay njëriñu wér-gi-yaram te mooy wér-gi-yaram yi nga xamante ne dina ko def ci yaramu doomu aadama kon koor aw yiw la lépp aw yiw la ba mu jeex tàkk moo xam ci wàllu wér-gu-yaram wala ci wàllu diine wala ci wàllu aduna wa hakada kullu al ibadat kulluha xayrin xayrun lil jismi wa lil aqli ولجميع شؤون الإنسان كل العبادات فيها مصالح عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى نكنون بولم جام يالا يالا سبحانه وتعالى فرطال جي نت كي مخي دف ييب اي نجرين لا يو خمنتيني ني داكاي دف سي ادم اك سي ادم اك سي مبولم ادم اك مبولم ينغوي ادم سي دوندو jaamu yàlla yooyu dina am ay njëriñ yu muy def ci dundu doomu aadama bi mboolem jaamu yàlla yàlla farataal am na njëriñ yu màgg a màgg yoo xam ne yàlla rek ko xam mi mi def ci xelu doomu aadama ak ci yaramam ak ci wérgu yaramam ak ci mboolem dundam fallahu farada ala al ibad ibadatahu wa qala wa maa xalaqtu jinna wal insa illa li yabudun mbokk yi yàlla subhanahu wa taala dafa farataal ci jaamami ngir ñu jaamu ko ndaxte yàlla bindul nit ak jinne bindul jaamami ludul dul benn jubluwaay benn objectif moo tax yàlla andi ñu fii ci àdduna bi ñu bañ ko fàtte te mooy ñu jaamu yàlla subhanahu wa taala wéetal ko bañ ka bokkaale len def mboolem jaamu yàlla yim faratal ci ñun yàlla mi ngi naan wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yaabudun binduma doomu aadama ak jinne ludul ñu jaamu ma te mooy wéetal ko bañ ka boole ak lenn waaye yeneen jaamu yàlla yépp ñu jaamu ko yàlla subhanahu wa taala وعبادتهم له راجع ثوابها إليه إليهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بوك ينو خمنا يالله سبحانه وتعالى جامي يالله ينكو يدفل جارين للب تي جامي ليدل motax yalla subhanahu wa ta'ala ni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun yalla subhanahu wa ta'ala ginnaw bu mu waxé ne binduma nit ak doomu aadama lu dul ñu jaamu ma yàlla ne soxlaawuma ci ñoom wërsëg soxlaawuma ci ñoom ñu jox ma aw ñam wala ñu dundal ma waaye yàlla subhaanahu wa taala nee man may borom wërsëg man may joxe wërsëg wërsëg lépp yàlla subhaanahu wa taala moo ko moom yàlla nee na yàlla moom nga xamante ne moom mooy borom kattan fa kattan yem kattan kattan gu mat sëkk yàlla subhaanahu wa taala moom moo ki nga xamantene ni moom moo ko am jàmbi lu lottu la ci kanamu yàlla ya subhanahu wa taala lu lottu la ci kanamu yàlla ya subhanahu wa taala waaye ya yàlla mooy ki nga xamantene ni moom mooy borom kàttan yàlla subhanahu wa taala jaamu yi yàlla yi jaam di jaamu yépp yépp yépp yool ba ci ñoom lay dellu ci jaam yi lay dellu waaye yàlla subhanahu wa taala soxlawul ci ñoom dara ma uridu minhum ginnaw bi mu leeree lan moo tax mu sàkk nit ak junne lan mooy jubluwaay bi lan mooy objectif mu bind ñoo nit ñi ci àdduna bi ne sàkkuma leen lu dul ñu jaamama yàlla subhanahu wa taala fi teg ne ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa razaqu dul quwati matin yàlla nee na soxlaaw ma ci ñoom lii di wërsëg bu dee wërsëg may may wërsëgalaate maa yor wërsëg yépp yàlla soxlawul ci jaamam yi lii di wërsëg waaye soxlawul ci ñoom ñu dund soxlawul ci ñoom ñu dundal ko wala ñu jox ko lenn waxte yàlla mooy ki koom ba koom ba fa koom yem yàlla mooy moo yor lii di koom te mooy kooma laata yàlla subhanahu wa taala jaam yépp dañoo soxlawoo yàlla subhanahu wa taala jaam yépp ñu ñu néew doole lañ ñu lott lañ ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala ci seen mboole yitte dañ koy diis yàlla subhaanahu wa taala yàlla moo leen ko mën a fajal keneen mënu leen koo fajal seeni soxla yépp yépp yàlla subhaanahu wa taala lañ koy diis inna allaha huwa razzaq yàlla subhaanahu wa taala mooy borom wërsëg mooy ki am wërsëg te it mboolem di dox ci kaw suuf wala mu ne ci kaw asaman yàlla subhanahu wa taala mom mo lay wërsëgal ma min da'batin fil ardi wala fis lsama illa ala allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarra lépp luy dox ci kaw suuf wala ci asaman ci yàlla subhanahu wa taala la yaakaari wërsegal comme wërsek yàlla moy borom wërsek dhul quwwati al matin yàlla subhanahu wa taala mooy borom doole mooy borom kattan mboolem kattan ak doole yàlla subhaanahu wa taala moom moo moom képp kam kattan yàlla subhaanahu wa taala moom moo la ko may yàlla subhaanahu wa taala ci kattanam gu màgg ci la amale lii di mbindeef yu rëy yi ne ci kaw ak ci suuf lépp ci kattanam yàlla subhaanahu wa ci la ko sàkke te mbooleem luy dox ci kaw suuf ak ci biir suuf ak ci asamaan suuf ci kattanu yàlla subhaanahu wa taala ak ci فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يلا لوكو صوب ونك لوكو صوب ونك امون دارا لوخ منتني لوت نكم يلا سبحانه وتعالى امون لن لوي جن تي كاتنا اك مم يلا سبحانه وتعالى لب تي نغورم لا اجو مم يلا اك تي كاتنا اك دولين مم يلا سبحانه وتعالى ci lay joxe jaam yi yépp lii di seen wërsëg ci mbooleem jaam yi ne ci àdduna bi ci kàttanam ak ci doole moom yàlla subhanahu wa taala ci lay dekkale léegi ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo faatu ëllëg ci la leen di dekkale ñoom ñépp mboolem mbindeef kon yàlla subhanahu wa taala màggaayam kawe na sell na màgg na moom mooy القوي المتين فثواب العباد يعود إلى صاحبها ida axlasaha lillah lii di payu jaam yi lii di payu day dellu ci ñoom buñ ko sellale te yàlla subhanahu wa taala rek tax kon am na solo jullit bi suy jaamu yàlla mu sellal ko jagleel ko yàlla subhanahu wa taala rek tax bañ caa bokkaale ak leneen bañ caa dugal keneen bañ caa def diggante kenn ak yàlla subhanahu wa taala mu jagleel ko yàlla kese du yenent du malaka du ab xabaru du waliyu du garab du lenn lu mi bas waaye da koy jagleel yàlla rek te yàlla tax wa kanat ala wifqi shariati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li anna al amal saalix lahu shartaan waaye ginnaaw bu sellal ga wéyee mu jéem jaamu yàlla ga muy def mu defee ko comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indee te defee ko noonu comme julit bi warul jaamu yàlla bépp benn jaamu yàlla lu dul daf ko war a sellal defe ko ni ko yonent bi sallam indee ak ni ko tur bi sallam defe woon ñaari sart yooyu jaamu yàlla gum amul yàlla subhanahu wa taala ko nangu kon ñu xam ne al amalu saalih lahu shartaan ashartu al awal al ixlaasu lillahi min alriyaai walnifaaqi walniyaati al oxra allati li gayrillah kon ñu xam ne lii di jëf ju baax ci lislaam ñaari charte mooy tax ñaar yàlla subhanahu wa taala nangu ko charte ba ca njëkk mooy première condition bi mooy jaam bi sellal te yàlla rek tax jaamu yàlla gum man di def ci lislaam ñu koy tuddee jaamu yàlla ak lu ma moo xam jaamu yàlla yoo xamante ne ni ay cër moo koy def yooyu jaamu yàlla yi nga xamante ne ci xol la aju wala jaamu yàlla yi nga xamante ne nii wala nga xam da koy def ak làmmiñam jullit bi daf ca war a daf ko war a sellal te yàlla rek tax sellal ko ci lii di ngistal du ci dugal ngistal seeral ko ci lii di nifaax te mooy du ci dugal ak naafiq mooy di def lii ci kaw waaye gëmu ko ci gëmu ko waaye ak yeneen yéene yi nga xamante ne nii ay yéene yu yàq jaamu yàlla mooñ ko caa dugal yeneen yéene yi nga xamante ne nii da ciy dugg te yàlla taxul mu génne ko ci jaamu yàlla wa amma siyaam fa innahu niyatun xaalisa lillahi azza wa jal li anna saim wal muftir sawa fi l manzar waaye lii di koor li tax yàlla jagleel ko jagleel bu rëy mooy ne nii ba ci am mu yéene ba cay am yéene bu sell la te yàlla rekk tax ndaxte kii di ko woor ak ku wóorul mënoo leen a xàmmee ci gisin su ñaari nit waxul mënoo xàmmee kii ku woor ak ku wóorul c'est-à-dire yéene ba kon diggante jàmbal la nekk ak yàlla subhanahu wa taala fii mar an naas kon lii nga xamante ne ni dañ koy gis ak ci li feeñ mënoo xàmmee ki wóor ak ki wóorul ولا تفرق بين الصائم والمفطر الا بنيه كي ديكي وور اكي وورول كين مون لينا خامي تي لودول تي يينه فالصائم ينوي الصيام تقربا الى الله وغير الصائم تارك الطعام والشراب انه لا يحتاجه او لانه يريد فوائد صحيه طبيه اجي وور جي دي يينه وور غير جام يالله سبحانه وتعالى اك ساكوك جيجي تي يالله سبحانه وتعالى واي كيغا خامتيني موم وورول واي باينا لي دي لك اك نان daf koo waaye yéene wu ca koor ak jaamu yàlla subhana taala daf koo def ngir ne moom soxlawul lii di lekk soxlawul naan moo tax mu bàyyi ko wala mu sàkku li nga xamante ne moom mooy ay njëriñ yu aju ci wàllu médecine ay njëriñ wér-gu-yaram kon nit dina bàyyi lekk ñaari nit dinañ bàyyi lekk bàyyi naan kii woor te kii wooru ndaxte wóote ba ma nga ci yéene ba kii dafa bàyyi lekk ak naan ak bàyyi ay aajoom ak ay soxlaam ak ay bànneexam جرجام يلا سبحانه وتعالى تقربا الى الله عز وجل مجيغ يلا سبحانه وتعالى كي باي لك باي باي اي سخلان واي اف كودف غير سخلو لولو ولا غير ساكو لنين كون غيس نين ووتي بي سي ييري بي لا كي لا اجو فصيام فريضه عظيمه فرضه الله على جميع الامم كور farata bu màgg la yàlla farataal ko ci mbooleem xeet yi kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun yàlla nee na xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataale ci xeet yi leen jiitu ngir ngeen ragal yàlla subhanahu wa taala fa hadihi faidatu siyaam annahu yusabibu taqwa te lii moom mooy njëriñu koor mooy ne day sabab lu day sabab loo taqwallahi tamay ragal yàlla subhanahu wa taala day tax julit bi ragal yàlla subhanahu wa taala laallakum tattaqun yàlla nee na ci alquran لما كو فرطا تيين غير غين رغال يالله سبحانه وتعالى هذه هي الحكمة بما يخيرين تفرطا لو ويركون أنه يفيد تقوى الله عز وجل أي تخجلت بمرغال يالله ممجمي لأنه إذا ترك تعامه وشرابه من أجله لأنه إذا ترك تعامه وشرابه من أجل الله عز وجل لأنه إذا ترك تعامه وشرابه من أجل الصيام لله تعالى دربه ذلك على تركه مشتهياته المحرمة وترك المباح تاعة لله فمن باب أولى أن يترك المحرم طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى دخلت جلد ببباية ليدي عمل درمو لكم أجنان منك إمبير يحمل يقدقن له جلد ملك أجنان يقدقن له واي مباية كونجر أم جرم لي الله سبحانه وتعالى أكباية كونجر يالله سبحانه وتعالى loolu daf koy tàggat ngir mu bàyyi yii di ay bànneex ak ay bëgg-bëgg yoo xam ne yu xaraam la comme que yi ci moom la bàyyi ngir topp ngërëmul yàlla subhanahu wa ak faratagu yàlla farataal ci moom tamay weeru day tàggat jullit bi mu bàyyi mbir yi nga xamante ne nii yàlla xaraamal la ci ay bëgg-bëgg wala ci ay ay bànneex yoo xamante ne nii yàlla xaraamal bëgg wax ne bàyyi na mbir yi nga xamante ne yu dagan la muy lekk ak naan ak sey ak sa soxna ak yi nga xamantene ni ay banex la nit ki julit bi da koy bayyi ci wéru koor ngir ngërëmul yalla ak top yalla subhanahu wa taala lolu day tagat kon julit bi comme que lolu la bayyi warna gëna mëna bayyi lu li nga xamantene ni lu haram dañ ko haramal ci mom kom ko bayina li dagan ci mom ngir top yalla subhanahu wa taala lo li gëna yayu mu bayiko ko mu bayilu haram ngir sakku li di ngërëmal yalla subhanahu wa taala فالصيام يضرب على الأعمال الصالحة وحتى نوم الصائم فيه أجر إذا نوى به تقرب إذا نوى به التقوي على الصيام فإنه يؤجر عليه يكتب له الأجر وهو نائم لأنه نوى التقوي على الصيام فيؤجر على ذلك كن لي ديكور koor تاغت tàggat بي bi تاغت جام بي تي مو جف لي دي اي جف يو باخ baax ميم lii di nelaw ki woor ki woor de nelaw yàlla subhaanahu wa da ko ci bindal yool ci bu ko yéenee fekkee day nelaw yéenee jege yàlla subhaanahu wa taala ak jaamoo ko yàlla subhaanahu wa taala ak ci nelaw yooyu mu jële ci ab noflaay ak kàttanal yaramam ba bu jógee ngir mu am kàttan ngir jaamu yàlla subhaanahu wa taala loolu yàlla subhaanahu wa taala ko ciy bindal yiw muy nelaw yooyu muy nelaw ngir sàkku am kàttan ci bëccëg weeru koor yàlla da ko ci bindal yiw ci bu ko yene yàlla da ko ci bindal yiw même ki nelaw day am yiw ci nelaw yi muy nelaw kon gis ngeen ngëneel yu reuy yoy ndax te dafa yene am kàttan ci nelaw yoy muy nelaw yàlla bindal ko ci yiw as-siyam kulluhu wa fadlun kulluhu walhamdulillah wa rahmah min allah li ibadihi wa huwa وهو an-nafs ala ta'ati allah وترك مألوفاتها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والله يضاعفه أضعافا كثيرة الأعمال تضاعف الحسنات بعشر أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة إلا الصيام فإنه لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى كون يخمني كور يو كسلة كور يلا جنتي يو يلا رك كخم جنيل كسلة كور سنتي يالا سبحانه وتعالى كلور واي يرمان دلة يلا سبحانه وتعالى كو جامعي كون كور day label bakkan day yar bakkan ci topp yàlla subhaanahu wa taala koor day yar bakkan ngir mu bàyyi yenn mbir yi nga xamante ne ni daf kaa mii ngir jege yàlla subhaanahu wa ak topp ko ndaxte yàlla subhaanahu wa lii di jëfi jaam lii di jëfi yàlla subhaanahu wa da koy ful di ko ful fulandi yu bëree bëree bëri comme ko waxee da koy ful di ko ful ko ful fulandi yu bëree bëree bëree bëri yu mel ni benn yiw boobu mu def ba mu àgg ci juróom ñaat téeméer ci ay ful wala lu ko ëpp ci ay fuladi ba mu des koor lii di koor kenn xamul nu ca yiw ya nu mu toll ku dul yàlla subhaanahu wa taala lii di yoolu koor yàlla subhaanahu wa rekk xam nu mu toll kon gis ngeen koor jagoo bi mu jag jagoo bi mu am ci mbooleem jaamu yàlla mbooleem jaamu yàlla yàlla leeral la ci yool ak fula niyee na mu toll waaye lii di weeru koor yàlla da ko dencal jaam bi ëllëg ngir ku daje moom mu fay ko fay bu rëy rëy nga xam ne moom ak yàlla rek ko xam kon koor jagoo bu rëy rëy la am fala yulamu ajru siyaam li anna allaha lam yubayin lana dalik xamuñu yool bi yàlla subhanahu wa taala ci weeru koor yàlla leeral luñu ko waaye yàlla dafa dikkii di aji woor ji ne dina ko fulandil ay fayam fulandi bu rëy rëy rëy yàlla rek ko xam ndax yàlla subhanahu wa taala sawmu nii wa ana ajzi koor maa moom taman maa koy fayal sama bopp إنه ترك شهوته وتعامه وشرابه من أجله كي لأجي وورجي دفا باي لي دي أي بانيخم باي لي لكم باي لي دي نانم نجير من رك نجير من يلا سبحانه وتعالى ولا خلو فم سائم أي رائحة نفسه في آخر النهار لأنها إذا دخلت المعدة من الطعام يتساعد منها أبخر مكروه للناس وهي عند الله محمومة لأنها ناشئة عن طاعته سبحانه وتعالى يالله سبحانه وتعالى يعني ولا ينسى سلام دي ولا خلوف فم السائل موي لي دي نغات جيغا خامتيني موي ген تي گيمنيو كي وور كي بو ووري با ديغ بيچك لي دي ген تي گيمنيم جوغي تي مباخم موي انغات ndax te umpule wu len ne euh, nit ki bu demee lekku naanul ba ñam ci ay ngat goo xamante ne nii peut-être nit ñi ngat la goo xamante ne nii neexul ci nit ñi waaye yàlla subhanahu wa taala ngat googu noonu yàlla subhanahu wa taala daf ko sopp ndax mi ngi jóge ci gémmeñu ku woor mi ngi jóge ci ku woor kuy topp yàlla subhanahu wa taala wa hiya inda allahi mahbuba li annaha naachia an taatihi subhanahu wa taala neexul ci nit ñi boo jigéen nit ngat googu noonu bu ko xeeñtoo mën naa bañ a neex ci moom waaye yàlla subhanahu wa taala ngat googu noonu kat ku ko neex la ndax mi ngi joge ci ku wóor ku topp yàlla subhanahu wa taala mu ne wala xaluufu fami saa'im atyabu inda allahi min rexil misk yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na ngat googu di génne ci gémmeñu ki wóor nee na moo gën a neex ci yàlla subhanahu wa taala ci lii di parfum misk ñëpp xam nañ parfum misk ci àdduna bokk na ci parfum yi gën a neex ci àdduna bi wala moo ci gën a neex lii di ngatu parfum misk fa hada fadlun azim kon gis ngeen koor gëneel yu rëy yi ci nekk ngëneel yu rëy rëy moom moo nekk ci weeru màgg wi ak weeru tedd wi fa alhamdulillah an tafaddala alayna fa awjaba alayna siyam kon ñu ngi sant yàlla bi mu ñu baaxee defal ñu ngëneel yu rëy yooyu ñooñu faratal ci ñun ñu woor weeru koor ngir ñu jariñu ci jële ci njariñ yu rëy ci suñu wàllu diine ak suñu wàllu wér gu yaram ñu ngi gërëm yàlla ya subhanahu wa taala te di ko sant ci loolu ya di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu ak nangu nangu ne suñu jaamu yàlla yi yépp moom yàlla subhanahu wa taala ko ñaan mu defal ñu suñu jaamu yàlla nangu ñu suñu jaamu yàlla yépp defal ñu tawfiq ak jàppandal lépp ñu mën koo taxawee def ci jaamu yàlla yi yàlla subhanahu wa taala def ci weeru koor ñu koy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu loolu lépp kon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nangu tuubu ñi nga xamante ne ni dañuy tuub di dellu ci yàlla subhanahu wa taala yalla nañu yalla subhanahu wa taala boole ci ñi mi nangul seeni tuub yàlla mi nga xamante ni dafa bëgg ku tuub ku dellu ci moom yàlla ñi ngi dellu ci yow di tuub waaye ñun ñi nga ñi nga xamante ni dañoo dañoo dëddu woon sori la yàlla yow mi bëgg ku la jublu si yow ñu ngi dellu si di tuub di dellu ci yow yow yàlla subhanahu wa taala yow yàlla yàlla nañu boole ci sa wàll yu yi la ragal ak ci sa kuréel gi nga xamante ne nii ñoom ñooy texe ëllëg yow yàlla yàlla nañu boole ci ñooñu yow yàlla yàlla nañu jàmmal lépp lu ñuy ragalloo ëllëg ci boy dekkal sa jaam yi yàlla yàlla na subhanahu wa taala yàlla nañu ca musal boo nañ ci ñuy mucc ëllëg yow yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yaatalal suñu bàmmeel yàlla yàlla nañu yombalal suñu mbir yàlla ñu ngi lay ñaan suñu mbir yëpp suñu mbir waajur mbiru jaam yëpp yàlla nañ ko yombal yow yàlla yàlla nañu jéggal suñu bàkkaar yow yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu jéggal te yéeñu ci suñu càggante ak suñu nelaw gu xóot ba sori la yàlla yàlla ñu yee ci suñu nelaw yooyu daal ñuy sori lii di ak càggante yàlla nañu baal jéggal ñi yow de yow yàlla subhanahu wa taala yow mi bàyyi dellu ci yow ku la jéggalu nga jéggal ko yow yàlla yàlla nañu yokk suñu xam-xam yow yàlla yàlla xamal xam-xam boo xamante ni daf ñuy jariñ xam-xam boo xamante ni dañ ciy jëriñu yow yàlla subhanahu wa taala yow mi borom ngëneel ak borom ki am ay may yàlla nañu defal ci say ngëneel ak ci say may yàlla yaa ngi ñu jéggal jéggal suñu waaju jéggal mboolem jullit ñi nga xamante ne ni ñu ngi dund ak ñu faatu dugal leen ci sa yërmande yow mi nga xamante ni yaay yërëm képp koo xamante ne nii day yërëmaate yaa du gën a ëpp yërmande yow yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ ñu yërëm wa sallallahu wa sallam wa baraka muhammad